mbokk yi xam ngeen lan mooy laïcité laïcité mooy diine bi yàlla joxe dafa am ñaari pàcc pàcc bu jëkk bi moo di diggante nit ki ak boroomam beneen pàcc bi mooy diggante nit ki ak moroomam pàcc bi ñu tuddee religion mooy diggante nit ki ak boroomam tubaab bi na mu tuddee na muy waxee ci diine ak ni musulman bi di waxee ci diine du ñu benn tubaab bi bu bëggee wax diggante nit ki ak boroomam religion lay wax mais bu bëggee wax diggante nit ki ak moroomam foofu lay wax politique ñaar yooyu yëpp mooy diine ñaar yooyu yëpp mooy diine diggante nit ki ak boroomam lan moo koy régir lii koy régir mooy fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur ku mu neex defal ku mu neex bàyyi ku mu neex gëmal ku mu neex doo gëm yàlla kenn mënu ko lor mun na la sama diggante ak yow bu la neexee gëmal bu la neexee bul gëm yowmal xiyaam nga ñëw ma àtte la ndax may naa la xel boo xam ne may na la pour nga xam sa borom bu fekkee ne sa xel bi jarañu la pour nga xam sa borom kooku sa affaire la yowmal xiyaam nga ñëw li ma la mayoon jëfandikoo loo ko ma àtte la mais bu dee sa diggante ak sa bo sa moroom li koy régir loi bi koy régir mooy lan mooy li nga bañ li nga bañ ku la ko def bul ko def keneen kenn bëggul ku la rey kenn bëggul ku la sàcc kenn bëggul ko njaaloog sa njaboot kenn bëggul ko la fen lii mbokk yi ñaari côté yi du benn côté boo xam ne bu la neexee nga def côté boo xam ne du la neex nga def boo leen déggee ñu naan séparer la politique et la religion mooy ñaari côté yooyu dañu xam ne du benn ndax yàlla de yàlla wóote nag nit du dëgg mbokk yi moo tax bu ñu ne la laïcité appliquer laïcité mooy boo dee appliquer laïcité da ngay appliquer loi bi nga bàyyi pas-pas bi diggante nit ak bo ak boroomam côté boobu yàllaa ko libéré nit ku ci nekk nekk def lu la neex mais sa diggante ak sa sa sa moroom côté boobu nag ñëpp ay tënku ci loi bi te loi bi nag yàllaa koy teg Sénégal nag ñu ne laïcité mooy diine amul laa diin moom la ñuy wax ci arab te fekk déedéet diin boobu religion boobu tekkiwul diine mu ngi tekki pas-pas bi côté boo xam ne diggante nit ki ak ak boromam na mu gëmee boromam loolu la ñuy wax ni nga gëmee sa borom teg ko fële par exemple man bu ñu ne ma woon tey gouverneur Sénégal damay appliquer loi bi charia bi lay appliquer mais nag du ma wax chrétien bi ne ko da ngay julli wala da ngay or pour ngeen xam ne mbokki loolu rek mooy lay laïcité par exemple bu ma dee waxtaan ak ab chrétien damay waxtaan ak moom ci xam-xam mais du ma waxtaan ak moom ci lii nga xamante ne moo nekk suma téere ndax li nekk suma téere gëmu ko loolu mbokk yi loolu mooy mooy tax nit ñi mën a ànd lii ñu bokk àdduna bi loi bi lu ñuy séddoo lu ñuy lekk lu ñuy naan loolu bu ñu ko amulee du ñu mën a jaamu yàlla moo tax ku nekk def ko soxla moo tax philosophie islaam mooy dëggantaan li nga xamante ne maanaam moom la doom la aadama soxla ñoom ñëpp nañu ko séddoo ku ci nekk am ci sa àq maanaam daal ci gàttal laïcité mooy pas-pasu nit ki bu mu tee bu mu tax nga xaj ko droit nga bañ nit ki bu mu tax nga xaj ko droit ci misaal Serigne Abdul Aziz si radiyallahu taala anhu dabaax dafa am benn jamono benn waay ñëw ci moom benn ñëw ci moom ñaan ko xaalis sëriñ bi yëkkati xaalis bu takku jox ko kooku dal di dem ñi nekkoon ci sëriñ bi ni ko sëriñ bi kii de liñ ko jox man na def saf mën na cay def safaan mën na cay def safaan sëriñ bi ni leen man de bi ma koy jox li ma koy jox xooluma lu nekk ci nit ki xooluma nu mu mel loxo daal biñ ma tàllal rek laa xool ba teg ki li ma ciy teg mbokk yi loolu moo di laïcité bul xool pas-pasu nit ki ndax pas-pas bi ku nekk la ak sa borom mais nag lii ngeen bokk yéen ñëpp muy àdduna dund bi côté boobu nag ku ci nekk nag ci boppam da nga ciy defal sa morom li nga bëggal sa bopp loolu mooy notion laïcité mbokk yi loolu aaya alquran yi ko tënk ak ñoo bari yàlla dafa daan wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala allaa taadilu mbonuk nit wala weddi yàlla ak nit bu mu tee mukk nga bañ a maandoog moom boobu lee idée mbokk yi bu rafet boobu te nekk ci alquran yonent bi di waxaat mu ne alquran di waxaat mu ne laysa alayka hudaahum walakin allaha yahdi man yasha yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn jamono alal ji xala néew jullit yi dañu masal di ñàkk ndeysaan léegi mu ne alal ji nu am te barewul yemale leen ko ci jullit yi ngeen bañ ko jox ñi nga xamante ne du ñu ay jullit yàlla yedd ko ci loolu loolu rek doy na preuve que ne alquran yàlla moo ko wàcc ndax kenn du def njuumte mel noonu di wane sa bopp yàlla ni ko lay laysa aleyka hudahum yow Muhammad ñooñu ngay gis noonu yéefar yooyu seen ak njub nekkul ci sa loxo maandul ci ñoom li nga leen war a jox jox leen ko comme jullit yi yemale leen ñoom ñett wante nag seen ngëm-ngëm ak seen nangam nekkul sa loxo kooku ci yàlla lay dellu loolu mbokk yi mooy idée boobu loolu mooy laïcité ak ñoo bari sax ay misaal bu ma ko bëggoon wax tey wante xanaa ci gàttal mbokk yi loolu ci islaam ak alquran ana lan la an lan lan moo ko booleeg musulman yi mënuñoo dund seen diine ah yoon bii leen yàlla jox muy xam ne benn loi la musulman yi rek ñoo am luwaa bu bàyyi ko ci yàlla ci àdduna bi nga xañ leen loolu tooñeel bu ëpp loolu amul ci kaw àddina bi ndax ku weddi loolu yaa ngi mel ni ku weddi yàlla yàlla amatul ndax bu fekkee ne àdduna bi dañ ko bind te loi bu bàyyi ko ci yàlla amu fi moom loolu mooy yàlla amu fi te yàlla ku nekk xam na ne mu ngi fi bon nag nañu ko jox li moom musulman kenn mënu ko gouverner te joxuloo ko loi bi nga ko war a jox ndax du ko gëm loolu mooy indi corruption bi yow yaa leen di corrompre ba noppi nag nga dellu gannaaw jël say yëpp di leen door mbokk yi ba ñu safaanee xamuñu lan moo di laïcité appliqué wuñu ko nañ ko war a appliqué ñu ne mooy diine amu fi loolu moo tax ñuy fal ñoo xam ne amuñu diine loolu moo tax ñuy fal ñoo xam ne amuñu diine boo falee koo xam ne amul diine nag nga topp ko yow yaa ngi topp koo xam ne amul diine yow itam da mel ni moom amul doo am diine yow itam du dëgg mbokk yi moo tax mbokk yi euh, yonente bi dafa ne ne ku nekk booy dekki da ngay dekki ka nga doon topp boo toppee am diine di nga dekki ajana boo dekkee boo toppee koo xam ne amul diine booy dekki nga dekku yal na yàlla musal ci safara mbokk yi xalaat bi ñu xalaat ne laïcité mooy diine amul ba tax ñu jël suñu diine sànni ko fële mbokk yi loolu moo tax tey ñi nuy gouverner ay yéefar dañu ñu def seen bopp ay jullit ay yéefar ñu def seen bopp ay jullit ay athée yu def seen bopp ay jullit du man maa ko wax de yàlla moo ne wa man lam yahkum bi ma anzala allah fa ulaaika humul kaafiruun yàlla moo bind adduna bi jox ko catalogue nga weddi catalogue boobu kooku yéefar la moo tax yàlla ne kooku yéefar la ñun ay yéefar ñoo nuy gouverner waaw mbokk yi tooñeel bu toll noonu du ñu noppi di ko di di ko xeex waaw beneen erreur bi ñu def mooy ay taalibe ñu di ay imam ne man du ma def politique te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon def politique di xeex di teg di defar diggante nit ñi ay senegal tey ay imam ñoo xam ne ñoo waroon a taxaw dox yontu yàlla Muhammad ñoo taxaw def seen bopp ay sëriñ te sëriñ du def politique sëriñ du def politique lu tax sëriñ du def politique ndax dafa am ay taalibe te boo amee say taalibe nga ak am ñen yeneen i taalibe yu fi nekk yow doo mën a dañuy ragal nga bañ a maandu seen diggante loolu moo tax marabu du def politique waaw mais nag ta imaam ak ustaas ñoo ñu war a def politique ndax ñoo ñu ñoo di lay laïc mais dañ def seen bopp ay religieux laïc du def boppam religieux léegi nag ba ñu caaxaanee ba nag échec am ñëpp a kenn xa ku nekk jaaxle nga gis ay marabu yu bàyyi koo fële ñëw ne dañuy def politique encore te bu ñu defee loolu dañuy féewale askan wi bu askan wi féewaloo du ñu mën a ànd bu ñu àndulee ñàkk ànd mooy jikkoy yéefar mbokk yi moo tax mbokk yi ñun tey xamuñu lu ñuy dund lan la am nañu lépp mais dañoo organiser wul dañoo organiser ndax dañoo violer suñu constitution laïcité du li ñu wax du diine amul diine dafa am ñaari côté diggante nit ak boroomam teg ko fële ndax kooku yàlla boo ko mën a àtte mais diggante nit ñi kooku doomu aadama yi mën nañ ko àtte te loolu charia rek moo ko mën a àtte ñu jël charia tàgg ko fële ñu ne charia warul dem tooñeel bu toll noonu mbokk yi moo soppi suñu dundee ba tax na tey ma ne mbokk yi amul laïcité doo am diine ku amul diine doo am laïcité ndax boo laata am laïcité foog nga am diine ba noppi diine jooju nga dichotomiser que en diggal en ñaari parti yooyu ngay doog a mën a am nga mën a doog am loi bi te loi bi musulman yi rek ñoo am loi boo xam ne bàyyi ko ci yàlla benn loi bu màndu rek moo am ci kaw suuf musulman yi bàyyi ko ba ñu ko bàyyee mbokk yi moo tax tey tubaab yi xamuñu lislaam musulman yi defatuñu lislaam tubaab yi dañuy jaaxle ñoom itam ñàkk a xam l'islam moo tax ñu noonoo l'islam ñàkk xam rek l'islam moo tax ndax gisuñu musulman yi def ko ñu noonoo noonoo jullit yi biir musulman yi nga gis ci ay autorités yoo xam ne tubaab bi moo leen yar ñooñu itam di def yëfu tubaab bi nañu gouverner rek jaral na leen lu nekk ndax mën ci am alal ci aram bu aram ñi nga xamante ne ñoo jàng diine di ay ustaas ak i imam ñoom ñu daw terrain politique bi ñu ni laïcité dëkku fii laïcité dañ ko jéggaan laïcité kenn jéggaanu ko mbokk yi laïcité képp koo xam ne am nga problème mu ngënaatle soxla nga laïcité ndax loolu rek la par parloo fu mu am soxla nga laïcité ndax loolu rek lay bañ ku nekk dégg na maam El Hadji Malick radiyallahu taala ba moom ba muy wax naan tafaadulu turuqi xadiisuhum mu ne nit ñi seen itti yëpp mooy gënalante gënante ab tarixa maa la gën tarixa maa la gën baay maa la gën xeet maa la gën euh, dëkk maa la gën nangam ngënaatle boobu kooku dafa araam ci lislaam te laxdëru yu boo ko wax ku jàng laxdëru yu di nga gis ahdi di wax lan wa yaxrumu alayhi alkadibu wal xiibatu wal namimatu kenn déggul loolu wal kibru wal ujbu wa riyaau wa sumaatu wa ruyatu lfadli ala alxayr wa ruyatu lfadli ala alxayr mooy gën nit ki Sénégal tey maa la gën tarixa loolu mbokk yi tey pour le moment lax dër yu xaraamal ko tey ñu bari tey moom lañuy ñuy def wante nan ngay fexe be kenn du gënante ci tarixa tarixa dañ koy nëpp jëfu xol la diggante nit keeg boromam bi la mais lii ngeen bokk moo di charia bi appliquer leen charia bi par pas-pas bi tarixa bi taifa bi ngeen nëbb ko loolu mooy lay laïcité mbokk yi wala dégg ñu ne séparé Sénégal nag defuñu loolu léegi tey lan mooy solution bi lan la ñu war a def pour changer la donne naka la ñuy def pour ëlbati loolu tegaat ko ci yoon mbokk yi li ñu war a njëkk a def mooy li nga xamante ne moo di parenage li nga xamante ne moo di parité yooyu ay filtre la yoo xam ne anti antidémocratique ndax laïcité bu ko sénégalais yi appliqué appliqué yoonu yàlla ñëpp ay nekk benn bon nag bu ko président bi appliqué wu ne ba tax tey parti yi bari bari bari bari yaay goo xam ne kenn mënatu ko tënk ki yàq loolu kooku mooy ki président bi moo def safaan ndax bu appliqué woon laïcité loolu du am wante moom mënul appliqué laïcité ndax na mu jëlee nguur gi jaaduwul mbokk yi lii moo waral ñuy dund safaan yoo xam ne. suñuy doom ñu ngi dee ci kaso yi wala ñu ngi dee ci désert bi lan moo ko waral ñun itam ñoo taxawul bay suñu waar na mu waree ci suñu constitution bu ñu bàyyee nit ñi violer suñu constitution tey parti dinañu bari bari yaay goo xam ne kenn du ko mën a nat boo ko wutalee ab solution nit ñi xeexoo reyante lan moo ko waral président bi moo ko dëkk ko def président bi ni ma doon koy misaale mbokk yi boo nekkee ab policier bu nekk ci aéroport nga nekk policier bu nekk ci aéroport ay nit ñëw bëgg a dugg sa ci biir dëkk bi te amuñu visa dañu la wax na bu leen jox visa boo leen bàyyee ñu dugg ay nit kan moo ko def ki leen bàyyi ñu dugg parti politique yi fi nekk yëpp ku ci dul ku ci xamul laïcité warul am parti politique candidat yi fi nekk yëpp kan moo ci mën a appliquer charia dès que le Sénégal soit laïque elle officialise la charia bu Sénégal nekkee laïque rek dafay officialiser laïcité charia charia mooy officiel ndax la laïcité mooy appliquer diine naka la ñuy appliquer diine ci ñëpp ah nan ngay def da ngay séparer ñaari côté yi waaw boo amulee diine nan ngay séparer ay côté ban diine la ñu war a appliquer ci Sénégal ban diine bu ñuy wax diine séparer diine ban diine la ñuy wax. ku nekk xam ne ne diine l'islam dina l'islam boo ko séparé jaaree ko tey ci ngay doog am charia moo tax bu ñu amulee charia loolu mooy tekki di ci boppam dañuy violer suñu constitution mboon Macky Sall naka lay violer suñu constitution ba noppi teg fi ab parrainage ak ab parité képp koo xam ne dëppuloo ak parité mu écarté la képp koo xam ne defuloo parrainage mu écarté la te nag moom mi nga xamante ne moo violer laïcité bi kenn du ko def dara est-ce que gis ngeen li xew lii mbokk yi lii moo tax Sénégal ban ta développe président bi daal bu ko neexee mën naa violer constitution bi mais keneen amul droit violer constitution bi mbokk yi tooñeel bii moo fi nekk mbokk yi moo tax suñuy doom di dee beneen tomb bi bi ñu war mooy Macky Sall di président xam ne moo violé suñu constitution dañuy jàngale ni képp koo xam ne danga nga violer constitution bi ci boppam da or dëkk bi képp ko or or trahison li koy àtte mooy dafa war a wàcc bu ñu fi toogee di xaar ay troisième mandat waru fi am ak war na fi am ñun ñoo xamul suñu wareef ku warta am un mandat waruloo am troisième mandat Sénégal nag ba tey ñu ngi toog di jaaxaan ndax ku violer laïcité mooy li nga xamante ne moo doon boole askan wi ba tax ñu am doole nekk benn boo ko yàqee yow sa bopp violé nga constitution bi tey sa sa sa àtte mooy da nga war a wàcce xool leen bu baax mbokk yi tey terrain politique bi tey ni mu mel ay parti yoo xam ne waruñoo nekk ay parti ndax mënuñoo appliquer charia ak ay parti yoo xam ne ay marabu la te marabu warta def politique moo tax troisième élément bi mooy parti yi nga xamante ne ay parti athéiste lañu dañ leen di dissoudre parti marabu bu fi nekk dañ koy dissoudre moom itam ndax marabu du def politique day féewale askan wi te bu féewalee askan wi bu boobaa safaan rek lañuy ñuy gis marabu du def ndax ndaxte dafa mel ni rek ab docteur buy opérer doomam wala avocat buy aar mbokkam waaw mel ni comme des fois yaay joo xam ni doomam dañ ko bàyyi du mën a ànd ak kenn ndax doomam lay yërëm loolu ci boppam mbokk yi moo tax du mën a àtte moo tax marabu du mën a gouverner ndaxte dafa am ay taalibe ak taalibe ñeneen te ay taalibe mënuñu kaa témoigner moom te mënu leen a témoigner beneen élément mooy Sénégal foog ñu def lu ñu tudd observatoire de la laïcité mooy institution boo xam ne dafay saytu képp koo xam ne dafa violer laïcité bi ñu tegalaat la ci yoon ndaxte lu garaaw la constitution bi moo ko digle nag bu kenn yaakaar ne li may wax fii sanction yi may wax fii mën naa ko créer constitution bi moo ko wax article numéro 4 la constitution dafa wax képp koo xam ne da nga def parparloo yow constitution bi dalay daal képp koo xam ne da nga bàyyi parpala mu dugg ci dëkk bi constitution bi dalay daan dañu la war a punir moom nag constitution bi war nañu dal ci kaw Macky ate atte ko pour ma wax leen loolu gën leen ko firil Macky Sall porté naa ko plainte ñetti yoon porte naa ko plainte 2019 ci élection présidentielle 2019 porté naa ko plainte 2020 porté naa ko plainte 2021 ndax dafa violer suñu constitution mais xaw ma lu xew xaw ma ndax da cee da cee dëgg concomam wala ndax conseil constitutionnel mooy ci dëpp ak wante bu ñu nekk ci démocratie képp ku ñu tooñ dangay dem foofu bu fekkee ne Ousmane Sonko par exemple ak benn nit ñoom ñaar ñoo jote ñu ne diw dañuy dindi malaanu kiraayam ci diir bu gàtt gàtt gàtt lan moo waral tey président de la république def loo xam ne moo gën a rëy lu nekk tooñeel boo xam ne moo gën a rëy ci àdduna bi yàlla ne def leen di mun a duma ko def ku def lu mel noonu nga porté ko plainte ndax li muy def day lor 15 million d'habitants ak lu ko ëpp lay lor kooku kenn du ko àtte xanaa dañu fàtte yonent bi sallallahu wa sallam ba muy wax ne innama ahlaka alladina min qablikum annahum kaanu ida sariqa fihim sharifu tarakuh wa ida sariqa fihimu daifu aqaamu alayhi lhadd fa ayyama allahi law anna fatimata binta muhammadin sariqat laqata'tu yadaha mu ne li alagoon ñi leen jiitu woon mooy bu ñu masaana def safaan bu bàyyikoo ci borom barke yi dañu leen di bàyyi wante ñi nga xamante ne ñooy baadoolo yi bu ñu defee safaan ñu appliqué loi bi ci ñoom keroog la wax ni su ma doom jii di Fatima bu defoon safaan sax ma appliqué ko ci moom bu sàccoon sax ma daggal loxoom Seydina Omar Abdul Xataab dal na ko yàlla fay yow dafa am benn jigéen bu xamoon bi mu laata nekk xalifa mu ni soxna si dama la soxla bi mu ñëwee bi mu nekkee xalifa nag soxna si xam nga Omar dafa ñàkkoon caaxaat soxna si ndeysaan dafa ëmboon mu tiit ndeysaan ba loolu tax doom ji juddu yuuxu génn àddina Omar dajale ay saxaaba yi ña mu àndaloon ne leen ah lii de laa bëgg ngeen seetal ma ci àtte lan moo ciy àtte bi ña gënoon a wax ni ko yow day yàlla moo def ya nga nekk amirul muminin yow dangay ngay yar defoo dara mbon lii dara amu ci fekk Ali ibnu Abi Talib ba ngi toogoon moom Omar mu ne Ali yaa ngi toog waxoo dara bëgg naa laa dégg Ali ne ko yaa amirul mu'minin ñii de liñ la wax du dëgg yaa ko rey ndax yaa ko tiital mu dee mbon nag loolu laa la mën a wax Umar ak manduteem nga ak ragal yàllam nga mu taxaw mu ni fii ma taxaw fii du ma fi déplacé benn mètre lu dul ne joxe naa diyaam mbokk yi ñii ñoo ragaloon yàlla bu nu bëggee dund dund bu tedd comme ni ko yàlla bëggee fokk nu dellu ci charia bu nu ko defulee rek violé nañ suñu constitution mboon nag pour ma jéem indi lu gàttal bu nu bëggee xeex tyrannie mooy tooñeel tooñeel mooy bépp àtte boo xam ne du àtte bi yàlla alam tara ila alladina yazumuuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduuna an yatahaakamu ila taaxuut waqad umiru an yakfuru bi ndax gisuloo ñi nga xamante ni dañuy wax ne gëm nañ la yow Muhammad ñu bëgg a àtte woo àtte boo xam ne du àtte bi yàlla waaw mbokk yi loolu mooy safaan bi bu ñu ko bëggee dindi ñetti yëf la ñuy def dañuy changer réalisme mooy politique bi jëfandikoo doole ak i ndigg sarax ñu teg fi politique boo xam ni dafay tegu ci jikko ju rafet loolu moo ñu mën a libéré beneen élément bi mooy code Napoléon bi nuy gouverner ci Sénégal tey du suñu loi mën na baax ci France loi mën na baax ci benn dëkk mais du baax ci beneen dëkk du suñu loi ñun charia moo ñu moo officiel ndax la ngay def France mënoo ko def Sénégal France dañu di dañu dañu discriminer musulman yi Sénégal fii tey musulman yi ñoo fi majorité bon nag mënoo leen a discriminer boo leen discriminer régal bi nga xamante ne dafay wax le meilleur bien et le et le moindre kenn deetu ko mën a appliquer kenn mësut a gis élection ñu jël ne ki gën a néewle mooy gagné ñetteel ba mbokk yi mooy ñi jàng arab mbokk yi ñooñu ñoo war a gouverner Sénégal ndaxte ñooñu ñoo xam charia bu ñu ko defulee jaay nañu suñu ngor jaay nañu suñu diine te nag dinañu daje ak yàlla ba di leen baalu ci guddal bi di leen wax jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu.